laaj na Zizi ndax pare mu ne leen waaw laaj na Ousmane Deme laaj na Talla Gaindé waaw arbitre sifflé na Talla Gaindé ak Ousmane Deme ndeysaan ko mu ànd ak julli ne ànd ak julli waaye kabar gi ànd ak julli ndeysaan Talla Gaindé ak Ousmane Deme jël na ko dàq Ousmane Deme bañ eh, Talla Gaindé ak Ousmane Deme congum yóotu la congum yi xaas congum yóotu ko kon Talla Gaindé ak Ousmane ñoom ñaar bu tënoo ko def station bu bañ bu tax na ko dafa jaxabal wala kal na ko Talla Gaindé ah waa xale yaa ngi bëre waay Sane Ousmane Deme dañoo ba génn saako yi oh waaye comme comme nii la mel waaye. ah man dama bëgg daw kal kal gi carkandelu waaw amul avertissement waay arbitre dañoo bëre ba génn waay ah caan gannaaw na am doo doon sëriñam wala dëgg doon mbaal eh remise na ko Talla Gaindé Ousmane Deme Talla Gaindé na ko Ousmane kal ko Talla Talla Gaye li ngay songu doon dafa dafa dafa jege li ngay songu doon koy yóotu congu kenn du ko yóotu yow Talla Gaye de ndax saa boo ñëwee Ousmane Deme da lay tëru daan Talla Gaindé ak Ousmane Deme Talla Gaindé ak Ousmane Deme mbot na ko mu bañ Ousmane Deme da ka mbot Talla Gaindé jéggi ko Talla Gaindé daax na ko kal na ko ay waay Talla Gaindé daan na ko la ilaha illallah da ka sa plaga daw lonku kalma daw dàq ko san Talla Gaindé ngi noonu xoolal la mu indi nee naa la doomu parcelle la 1 ba a attention c'est gauche attention c'est gauche Talla Gaindé xale baa ngi noonu boolewul dara ngi wax moom Talla Gaindé sëq sànni la mbir meenu